solo bi nga xamee ne nekk foofu euh, ca euh, diwaanu euh, yëmbal gis ngeen ni toggin meek ya ca aaju yëpp demee ci bisu tamxarit bi Fatou Laobé nag ko ne xam na ni law lawbe dañu ko bàkkee mën a togg lawbe dañu ko bàkkee macha allah kuddu ci noir damm ci seen loxo palaat boo leen tegal rek mën nañu mbaa set boo leen tegal mën nañu koo togg te Fatou Laobé lii mu togg ci cere defe naa ni preuve la ci noonu la ñuy jugee directement daal di dem seeti Alaaji Pape Malick Casamance ak Badiane Ndak ñoom dem nañu def seen taajo boon seeti ki nga xamante ni moom moo di euh, Tamsir Soxna euh, borom Sicap Saalum Saalum bi ñu xool Tamsir naka la taajo boone <laughs>

buub euh, dañoo ñëw tey foo xam ni ah day jëmu joo xam ni tool la Sénégal yëpp xam nañ ko muy def ko tu lu baax bëgg population bi di def social yërëm nit yërëm doomu aadama di leen jàppale te yàlla tax tey nag waa Sen TV ñoo nuyu si Alaaji Tamsir Soxna dégg lii kan mooy Tamsir Soxna spécial taje tam xarit ñu ne duñ ko defe fenn fii lañ ko defee li Sénégal di rëy rëy fan lañ koy defee kër Tamsir Soxna lan moo tax jikkoom a ko ko may. dëgg lool yaram. Mm-hmm. tegginam. Mm-hmm. jikkoom ak juddoom. Mm-hmm. ak socialam. bëgg réew mi. dëgg la balaa nga dugg ci tàgg bon tuuti rek. première dame ci biir la laa ko tuddee. noo ko tuddee. kenn ak kenn ak këram. dunu bég bu ñu yóbboo riiral bu takk day naxi day naxi nekk télévision askan wi télévision bi nga xamante ne dafa xew ci jamono mm-hmm. di seet nga xam ni borom dafa nekk un jeune dynamique mm-hmm. am jom nangu liggéey taxaw lu mel nii ci réewam mm-hmm. dafay seet toujours ñi nga xamante ne dañuy judd ci seen dëkk bëgg seen dëkk représenté seen dëkk indi seen doole def ko ci seen biir réew yor ay ni di leen teral indi seen xaalis investir ko ci réew mi lu mel noonu moo tax ñu jóg ñëw seet si ko mel ne daf seen soxna nekk un grand monsieur nekk nit ku bi xam nañ ko bëgg boppam nekk un <laughs> nekk nit ku dynamique un jeune allah plein d' avenir. moo tax ñu koy ñaanal yàlla. ba bànd ko mu nekk maire ñu ñu ndokkeel. amiin waay waay si nekk nouvel ñu ciy souhaité ku nekk ñu fekkee at yi bari bari. amiin. gi maa ngi lay nuyu. di nuyu waa Sen TV. Mhm. di nuyu suma xarit suma rakk. Bougane Gueye Dany. Mhm. Bougane mu semaine bi passé gisee nañ waxtaan nañ ba ñu waxtaanee lu ma wax nee naa ko buggaan mu naa ah, mënan la yow da nga ma may cër ba nga xamee ne mosoo jaar sama tur toujours grand rek na nga may wooyee donc euh, ku mel ni buggaan euh, vraiment dañ ko war a jàppale ñun sénégalais yi parce que nit koo xam ne la liggéeykat la te lu mu am mu ngi koy investir si suñu réew nekkul Samba Alaar lu muy def yëpp si réew mi lañ koy def donc maa ngi koy nuyu di koy encourager di wax ne ku mel ni Bougane war nañ ko jàppale ñun ñëpp. man nag comme niñ ko waxee euh, aussi maa ngi euh, remercier sumay soxna euh, di remercier suma suma grand suma mag Cheikh Sall. Ah, waaw moom bu ñuy commencé politique. PS bu yàgg ba. en 96 ñun ñoo nekkoon. ci parti socialiste. donc euh, ak suma xarit euh, Vincent Colli. voilà d'accord donc maa ngi leen di remercier di may remercier sumay famille yëpp euh, man nag Tamsir soxna opérateur économique la nekk naa en 96 lu tax ma dugg si politique ku ñuy wax fa Kalidou Dieng moom mu dugg si politique. en 96 laa dugg si politique nekk conseil municipal après en 2000 euh, ab euh, Ablaye di jël pouvoir bi ñu ñëw 2002 ñu def élection man at ñaaña euh, ma amoon cinq conseillers ma jox ko ñaaña si laa nekk deuxième adjoint maire. ñaaña Touré ma nekk deuxième adjoint maire donc may dem di dem ba 2014 ñu ñëw. ñu am man a euh, man ñëw at ñaañu Touré ñoo yemandoor ñoo yemoon quatre quatre conseils quatre conseils. Mm-hmm. donc euh, taxawu dakaar moo jiitu après APR euh, après man a ñaa ñoo yemoon conseil. Mm-hmm. donc voilà Tamsir noonu laa defee politique ba jusqu'à nos jours. Mm-hmm. ren nag dama fas yéene. maa ngi waxtaana Bougane bu Bougane bu baax sax maa ngi waxtaan moom. te yaakaar naa ne duñ réeroo parce que am na loo xam ne ñu ngi koy tënk ñun ñaar mm. dañ ko wax télévision. Mm. donc ñu ngi siy waxtaan euh, parce que kenn mënut a demal bopp yow kenn rek. il faut que ñun ñëpp ñu xool force doomu réew yi nga xam ne amal nañ njëriñ seen gox dinañ fexe booloo. pour ñu ne nekk benn say parce que suñ diviser rek duñ dem. tey di seet si tab si soxna dañ fi fekk soxnaam bi nga xam ne moo nekk deuxième épouse nekk deuxième dame nekk sama nawle eh, ñëw mu accueillir ñu ubbil ñu kanamam ubbil ñu këram eh, toog waxtaan ak ñun assister ñu duñu laaj tafsir ba dem te laaj ñu ko moom naka la waajale tam xarit ji ak naka lay waajale cere ji. laaj nga cere koo xam cere tàjje na ko maa ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu ñoom Thiambaas ak soxna si yow maa ngi lay nuyu ñun nag tam xarit nii rek defar rek ba mu baax xam nga ñaareel yi moom yow ñaareel nga ko man xam nga nuñ koy defee waa <laughs> togg nañ cere bi daal di xaar ngeen xaar reer bi rek ñu reer ko mu jeex <laughs> lu ma la wax waccal mu dem jigéen bu dee say tay njaaloo waccal mu dem xoolal bu ñuulee ñaaw xonq bët bare karaw mën a yéeg ba mel ni golo ma bëgg ko këram yow mi ne yaa nelaw ne leen ma bëgg ko këram xoolal mag dégg na caraw ràcc tëggoon ak yéegul mag dégg na caraw ràcc tëggoon gi yéegul mag dégg na ca pes na pes tëggoon ak yéegul na yat na wooy mag zapat amul lu romb fi ah. Sicap ku leen doy. Sicap ku leen doy. Sicap ku leen doy. ku leen doy. ñoo ko euh, gisandoo gis ngeen euh, madame Tamsir Soxna nee na noonu la taajalee Tamsir euh, cere ji Tamsir di nit ku baax moom itam tam xarit bi nga xamee ni ci la ñu nekk daanaka yu bari ci ay